Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb Sayxi yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla ay maqaama yàlla auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabil ummi wala alihi wa sahbihi wa taslima auzu billah ne yéen suivre seen télé bi nga xamante ne mooy Salam Vision à travers si YouTube bi ak mboolem réseaux sociaux yi nga amaan bi tey ci seen émission bi xam ne mooy seen jotaayu xam-xam yi mooy faj sa jàngoro tey ñu dellu siwaat seet siwaat Souleymane li tax ñu seet siwaat ko ay mbir la waaye bala ñoo def dara sëriñ ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar waaye itam ñi ngi lay ndokkeel te di la jox mbooleem wàccuwaay bi macha allah rabbi naan salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu ñëpp ziyaare ñëpp wala koo xam ne ñu bàyyi leen xel rek ñu koy def suñu buum xam nga asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm. Cheikh Talla ñu ngi lay ziyaar bu baax di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram wér gu yaram. daa ngi leen di yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala gàllankoor bi di ak tamit yàlla ko yàlla tey gi ci bàyyi seen dama xam ni comme daa doon test ngeen test incha allah. jërëjëf Serigne Souleymane Diouf ci nuyoo am solo boobu macha allah rabi waaye mbégte la ñu am tey ndax li ko waral mooy euh, damaa bëgg am yu ma découvrir ndax dégg naa Souleymane am kàddu yu mu wax ma dégg ko for ko léegi faaw ma lijjanti loolu Souleymane dama dégg sa benn jotaay boo def ci jamono yële ci ginnaaw ñu waxtaan ci wàllu li nga xamante ni mooy li ko olof tuddee muy wàllu rab nga ni ma guddi yu ñu toll néew ma maa dajal ci senegal waaye bokk naa ci ñi dajal ci Sénégal ci wàllu rab dama yor duma yu ma leen di duma yu bëri ay fan yoo xam ne benn bu ci ne dama koo gëstu ji lijjanti ko toppatoo ko tarbiyu ko ba jot li ma ko war a jotee doole ñëw indi ko tax di ko jëfandikoo ma bëgg nga wax man ci loolu tam nu mu demee nu mu dikkee ci yow ak la moo tax nga ne yow tey jii fi ne bokk nga ci ñi fi teg tànk ci wàllu rab. waaw alhamdulilah rabbil alamin sëñ Talla waaw wàllu rab nag dafa am fànn bu ne am na koy fajee am nañu anam anam benn koy fajee. mais yàlla ñun dañoo dogal ni rax na mën kaa gëstu yi baax baax donte doon nañu waaye doon liir ñu. Mhm. dañoo leen jàng ji. bu ñu jàng jee loo xam ne moom wax dëgg yàlla fay na si. Mhm. si loo xam ne néew a Sénégal maa daanaka dëgg la. Mhm. mais bokk naa si ñoo xam ne moom moom rax moom fooy yéegee neexee yàlla. incha allah rabi ba li dëkk dëgg la te bis boo ñëwee rek ak ak lu jox bis boo ñëwee rek ak téere bu ma lay jox bokkul. mais moom moom sànqal bi moom ñu yàlla yàlla may leen si wàllu alxuraan bi moom. Mm-hmm. incha allah ku si jëflante mu neex yàlla yëngu rab mu nekk si yow si yàlla mu naax a dangaa ko ngeen si yow. bu àndee na wax yàlla ku fi ñëwee ah ak mu mën a doon démb si ak mu xam ne mu ngi yéete ba mu kanam. Mm-hmm. mu nga mm-hmm. na kaa si rab mën na yàqal si lu bëri. Mm-hmm. man a yàlla yëpp soo ñëwee ba dindi ko lu dul mm-hmm. allah. mu doon lu am solo parce que loolu laa dégg gis ko mais tam bi ma ñëwee wax la ci nga indi ay firnde ma ma seetaan ay vidéo yu bare bare yoo xam ne benn bu ci ne yaa ci jëflante ci wàll bi moo tax ma bëggoon xam secret bi nee nga ma du benn xeet rek nga ci yor benn façon rek nga ci yor fekk nga ci ay secret yu bëri yoo xam ne dafa am lu mu la jaraloon nga jógoon dëxëñu ji génn lijjanti ji loolu ci loolu la ba ngay indi ma ci itam tuuti Serigne Souleymane. waaw wax dëgg yàlla yàlla dama dimbali ma déggante góor bu baax góor bu tedd lool macha allah koo xam ne moom jaamu yàlla doog mu xëy dëgg ci àddunaam. Mhm. mu ne ma sëriñ soo bëggee xam-xam dëgg il faut que nga nit koo xam ne ngay tëdd bi ma ne ko bu ñuy tarbiya mun nekk na nit koo xam ne xam-xam soo bëggee dëgg bi ngay gëstu ci mm-hmm. mën naa fañ nag dëgg la am na ñoo xam ne mën nañoo faj ñu fa jàll la nga gis mais nag Alxuraan lay gëstu ji ngir Alxuraan moo fi nekk mm-hmm. ma ne ko nu koy gëstu jee mun ma dangay eh, fexe ba toog sama benn yàlla xamal lu bëri si wàllu rab loo xam ne koo tiim mm-hmm. loo jàng si nopp ba bu neexee yàlla si si rab la moom incha allah rabbi dina rek doyen mu ni ma du ñëpp daan de mais am na ñoo xam ne suñu borom daa dogal ni borom rab moo soxal. Mhm. boo ñëwee loo jàngee si boppam rab ko day waxal yow. si dee magasin tamit mën nañ caa rocc dugal ko si nit. Mhm. te du ñu génn ak ko ànd. te kursi bi du ma ko génne ak nit. ayatu kursi bi. du ma ko génne nit wala tabatee naa. <laughs> sekk si loo xam ne maanaam si wàllu rab. Mhm. incha allah rabbi boo si ak rab bu mu mën a doon bu àndee dogal di yàlla déggoo lu mu la rab mu mën a doon neexee yàlla yeneen bi te nekkul loo judduwaale hmm. dinaa xam ne bu nekkee maanaam du dugg nit daal maanaam. du dugg nit ba nga xam ne kii ab tawat la koy indi. Hmm. wala ay gàllankoor yu mel noonu di ko yàqal ak yu mel noonu. bu neexee yàlla yëpp mën na laa defar naa dafay daaw. Hmm. mais moom moom sangat bi ñu lay jox ay tàngaay. ci alquran. soo toppee traitement bi lu ko waree incha allah rabaa ni ma woo di Souleymane ak

faatiha looy lekkaan liggéey day dund alami àndal yaasin tabatela yaasin fataxen naa benn bu ne alami àndal yooyu yëpp maanaam àqu ànd te du day gën ay def def day dund lu nekk mais yooyu nag soo ko bëggee il faut que na gëstu bi sëñ taal maanaam dafa ànd ak gëstu bu baax boo jàng ba yooyu téye tamit tey ba jàng ba pare. Mhm. il faut que ñu dem gëstu ji assurance dëgg la soog a mën ok waaw. ma ne ñu ne ñu ngi sant yàlla. ma ne ko def boobu ñun moom wàllu rab moom suñu daal. Mhm. ci kàttan yàlla am yàlla day may na si dayoo boo xam ne incha allah pour si jëfandikoo. macha allah mu lay moom si kàttan yàlla am. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Serigne Souleymane ci tontu bu leer boobu macha allah am na solo lool wax dëgg yàlla waaye li bokk na ci li nit ñi bëggoon a xam itam leeral nga ko ci mais Serigne Souleymane. Euh, traitement bi ci ñaata jamono la war a diiru wala dafa am xeetu rab bu nekk ak traitement bañ ko war a utal wala naka la affaire bi demee foofu noonu. traitement mhm. mhm. ñun àqu ànd ak kay mhm. aar. mais nag bis boo ñëwee nit si ñëwee ci man maanaam ba sanga bi ma jox. ak alal bu mu koy joxee ah. Mm-hmm. al élément lu ma koy traité ndax nit ñi ñoo bokkul yow di jël tabiyax yi bokkuñu. Mm-hmm. kon su ñëwee il faut que ma xool lii moo koy fekk ma faj léegi su noonu. mais waa gis wàllu côté boobu moom. Mm-hmm. ah traitement bi dañ na nekk vingt et un jours. vingt et un jours ak téere bi ma lay na takk bu àndee loolu yi yàlla rab boobu lay taxaliku. incha mu doon lu am solo Serigne Souleymane Diouf ci leeral boobu nga xam ne indiwaat nga ko indilaat ko askan wi. ñu ngi bàyyi xel télé bi bu baax a baax te wax dëgg yàlla émission yi fi def dafa dafa am solo ba tax na rek saa su ñoom ñu ngi ciy bàyyi seen xel eh, léegi sëñ Souleymane ñëw nga ci sangat yi indi nga tamit wax dëgg yàlla ci maanaam xeet peeg yi nga xam ne yaa ngi koy peete rek dama gis ñaari bërigo yoo xamante ni benn bu ci nekk duy na ba fees waaye li mu duy bi ñu paree dama gis ay butéelu parfum ci kaw bërigo yi parfum yi bërigo yi pour lan ci lan jëm moom. bëri euh, bërigo day suñ daal ay càngaay glace la. Mhm. benn bi pour rab la mooy bu fekk bi noonu pour rab la. Mhm. benn bu ne am na muy àndal. Mhm. waaw bayra bi dafa am lu muy àndal. waaye bu ko sangoo fekkee mbooloo dëgg na bëgg. di gàll. bu neexee yàlla yeneen bi incha allah moom ci mbooloo daal lay dox moom. mbooloo lay dox ak si koo xam ne moom dafa yor place. Mhm. ni place bi dox. Mhm. bu àndee ndogal yàlla bu ma ko joxee incha allah delloo la ko. Souleymane fi gaa <laughs> yi dañuy xëy suba jant bi sax di jaay sëñ bi réew mi dafa métti te dafa jaxasoo sëñ Souleymane daal ah, yàlla de mooy jox ko neex. Mhm. ndax moo ne fa xaalu li maa lu ma neex laay def lu ma sopp laay def donc yooyu ko sopp day def mm-hmm. salli ala Muhammad am na ñu baaxal te ñu baaxal sant yàlla mm-hmm. ñun nag moom ñu ngi wax sa jour mm-hmm. yaram ka sangat bi mu set def xam ne wóor boo wóor ni ku la laal yàqu baax a def waaw yéen bu amul kaaraange sëñ Talla musiba daa ma kaay te surtout maanaam bu dee coono nii. mbaadu waaw. kon <laughs> yaram daal dañ ko war a aar ba mu aaru. dañ koy aar pep ko wala xamante mhm. tey jii dañ ne da nga dagg xaatim ba ne mhm. am na problème. lu dee da koy am jàmm. mbaadu. waaw loolu la dafa war a safa yaram yi dañ war a aar. luy mhm. ñoom bu amul kaaraange la yaa ngi bokk na ci tudd nga kaaraange mais te jii buñ suñu laalee ñu Souleymane euh, xew-xew yi xew ci jamono bi jamono yëpp rey yu métti yeeg xaru yeeg façon bi xew xale yi tàkk fi mu toll nii lan lan ban jàngat nga ci am ak lan nga ci wàllu woowu. man de li may wax soo ko nee naa la jamono bu ñu toll nii séyaatiir mhm. ah, yi bëri te am. dañoo jóg ah ñooñu suñu jógee attaqué fii nii di daal dëkk bi. Mhm. te sacrifice bi nekk fi nit ñi di sacrifice doomu aadama yi. Mhm. ak léegi fa lañu a soxla sax ñi ndax mag ñi dox na seen wàll ko de. Mhm. mais jeunesse yi topp seen euh, seen seen buntu àdduna. léegi moom ñoom yàq. mais nit ñi ñoo bàyyi xel ni. bis bi dafa ñëw ba pare yow xeetu ñëw ba pare jege na te nit ki kenn ku ne xamal yàq naa bi xaaral dara te xëy na yàlla. Mm-hmm. waman yàq naa bi xaaral dara te sonal yàlla. wallaay ndeysaan. man taram moo ma jaaxal. Mm-hmm. xel nit. Mm-hmm. àdduna te dina tukki xam na ni yàlla am na muy wóolu yàlla gëmuñu yàlla te suñu gëmoo yàlla yépp yi duñ yéen la de. kon nag yàlla na yàlla boole jéggal. moo leen loo xam ne maanaam ay ay bagages yoo xam ne fi nekk. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla dégg. amiin yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. incha allah bay fekk daal nit ñi na mu tijji kaaraange bu guddee joxe si kanam. Mm-hmm. na mu tijji kaaraange. Mm-hmm. kon daal ku ku aaruwul daal fi mu toll nii moom mën naa mën naa daal fi mu nga. wax dina bëri lool.

jërëjëf sëriñ Souleymane kon fi mu ne loolu itam fi ne xam naa dana bu vidéo bi dawee fi mu dana sëriñ Souleymane a mais yëf man niratuma ay xaatim ndax kayit boo xam ne daanaka mët na un mètre ci taxawaay daanaka quatre soixante dix centimètres ci yaatuwaay Souleymane ñu bind ko ay turu yàlla ba xaatim yooyu njëriñ bi ak lan moo leen tax a jóg benn bu ci nekk. yàgg yi de benn bu ne am na yoo xam ne da doon liggéey li gën def liggéey moom soo ñëwee ne loxo joxe juróom-ñaari fan sax fangoo liggéey bi nekk si hmm? waaw si kattan yàlla. te ci alxuraan la tënku. te alxuraan moo gën. taal man nan may jaaxaale alxuraan yi fi. alxuraan bi. bii day wallaay day wallaay wa taala aju yëpp faju. dëgg la. ko ah, wax àdduna ko ñu dégg ko gën ma alxuraan ñun alxuraan laa gëm. Mm-hmm. ndax moo di teral. waaye dara féete woo ko kaw la. Ah, ne naa fi def fi guddi yi nii xaatu bi may wax nii xaatu bu nekk. ah. al mhm. la muy jariñ yii ba pour bayro la yoo xam ne pour soppi nit la ci wàllu xaalis lay dox. ci wàllu xaalis. xaalis lay dox. sëñ bi réew mi ñëpp problème xaalis la ñu am de. déggoo bii de ci wàllu xaalis lay dox. maanaam expliqué leen mu demee loolu mu maanaam boo ko xaatim bu ma xaatim ah. Mhm. lu ma koy booleel. soo ko boo ànd si àndee am moom maanaam dañu jëli ko boole ka am moom muy àndal. Mhm. bu àndee na ko dëgg yàlla mën na kaa sangoo onze jours ak ndox mi àndal mm-hmm. bu àndee ndogalu yàlla incha allah dina am kaaraange ak ubbeeku mm-hmm. am xaalis gis ndirit eh, da ngay mucc tey mos waaw boobu fi loolu daal baax boobu dee mos mucc te mos mucc tey mos di daa baax sax nag ah, te di te mucc mm-hmm. ba doo gaaw a faatu. doo ko tal sax doo tala mos. merci beaucoup mos doo ko tala dund. te dañuy da ngay kaara am kaaraange ba pare. Mhm. Mhm. soo gaaw wut baykat. baykat am xaalis bi te amoo kaaraange dëgg. Mhm. da ngay gaaw a wàcc ndax cat doomu baaxul si doxumaa bëgg a aji. kon lii moom fi ne daanaka dafa ànd ak ubbeeku boo xamante ne ànd ak kaaraange ànd ak muslaay ànd ak yéen. dëgg si am na boo xam ne sa ay tudd yàlla dong laa laa laa laa laa laa def te xaaj mu mag a def mu ngi koy liggéeyee saa yenn pële du moom parce que su guddi yi toll nii si kàttanu yàlla. lépp ngir jaami yàlla yi. incha allah rabbi képp ku ñëw kenn mu fekkee xaar taxaw bu jub rek bu neexee yàlla yéen di ko am. xanaa fi mu ne warta warta yomb de xanaa kon fi mu man am ko wax de xanaa waxta yomb fi mu ne nii. non ah lépp lépp lépp nga mën naa yomb de ah, alxuraan lépp a yomb kese ni ñuy defee lii yëf yi rek mais lépp suñu borom dogalee moom ku fi ñëw di la yombal mbir mi ndax mbir mi jëfewul. mbir mi jëfewul. ay nii nangama nangama nangama amu fi fii moom ku fi ñëw ëttub daara la. daara la daara la boo xam ne di jàng nii ñëpp ay ndongo la. ndeysaan. génn ñu ndongo. Mm-hmm. waaw lu ñu sëriñ dund dara ay taalibe yu matagul taalibe. ndeysaan. waaye bu fii dara ah, lu wér. alhamdulilah. waaw loolu moom yàlla may nañu ko moom si kàttanu yàlla. incha allah yal na yàlla xeb dolli Serigne Souleymane Diouf ci leeral bu am solo boobu tam macha allah kon nag jaame yàlla ni ci am solo rek nañ fexe ba jokkoo ak moom ndax waxtu yàlla gannaaw li muy def itam base bi lépp alxuraan la. waaye itam yërmande suñu borom la ciy demee ndax sañta bañ lay doon ci moom kon macha allah yal na yàlla def te gën a dëgëral dëgg rek moom ci kàttanu sa borom ndax yàlla yàlla ko yàlla mottale ma génnee ci xaatim yeeg yi muy yi muy yi nga xam ne defaral nga ko jaami ma dégg ne am na ndombo loo xamante ni dañ ko dëggee lépp aaya alxuraan benn bopp benn téere bu ci nekk bu ne aaya aaya alxuraan la boo xam ne lim lañ ci def te ba pare dafa ànd ak i wér ànd ak man daal liñ ma wax ci ndombe gi lépp fi ne daal yow tunga ne du teew ñu ne daal yow yaa koy wax téléspectateur yi daal koy dégg. seen karam. Hmm. bii. mooy ban. ndombe gii. Hmm. ndombe juróom-ñaari gaw yaa ngi gis benn ñaar ñett ñeent juróom juróom ñaari juróom mais ndomba gi dëru bëy bi ñuul kukk nañ koy awee wax bëy bi bëri bi melo. nañ koy awee nañ koy awee yaa xam ne yéen jëlee di bëy lewatee ko yaa xam ne dafa yàpp wax. muy del parce que boppam benn melo na mm-hmm. mais foo nekk si boppam si àll bi. Mm-hmm. ku la tiiree fetal fetal ba di jóg. dégguma. ku la tiiree fetal laa fetal ba di jóg laa wax te loolu yëpp la. maanaam buñ la dooree ba lu fetal du tàkk. du jóg te am na bu gën a pire pire boo xam ni tamit alxuraan la te normal la dëru béy tamit dëru béy bu ñuul bu ko la koy awee du bokk bii te bii di tul de boobu tul la bii di tul te tul dama si liggéey bu bu bu mucc ay boo xam ne fan incha allah rabbi da la koy jox na natt ba gis nga koy fi mu ne nii këf kii nga ne ma fi li nga ne ma ne ku ko takk fi ne du tàkk sa kaw fi mu nii boo ko doon joxe. fi ne da koy ese am fi dara si boppam téeméer la si àll bii na dugg si àll bii àll ñay bii. li téeméer la ab bal soo nekkee fenn foo xam ne amul tiitaange amul dara soo nekkee takkal foo xam ne soo demee li ngeen tiit na ngeen ragal takkal gaw yi ko doon te génn ma alxuraanul karim daal la wax te doom bi. mais Souleymane est-ce que lii mas nga ko essayé yow yow mi ko defal. man mii si jëmi boppam maa ko defar ba mu wér jox ko nit koo xam ne homme de tëddi na moom moo wax bu boole maa nit si kàttanu yàlla man may wax am naa fu ma ko teg <laughs> waaw kay mu ne mu ne jaaxaar Souleymane nga xam ne boo ko takkee fi mu ne moom bal du bu ànd ne dogal yàlla incha allah rabbi ne nii diir nii ndax raw xaal bu ànd raw raw xaal mu ànd ndax jaaxaan am fii. lii mag mag moom ko jox te ka jox am na téeméeri at ak luñ teg waaw nekk luñ caaxaan sax Tarkalla jërëjëf Serigne Souleymane. mais man fi dama am dama xaw a équationné wu quoi parce que mooy wax dëgg yàlla ndomba gi man fi mu ne ma jaaxal parce que tàkkatil damay gis gars yi wax ni fi mu ne daanaka euh, da fi di fay ay millions yu bëree bëri bëri bëri pour mën ko yow nga ñëw yombal ko nii teg nii essayé ko ba pare nag teg fi mu ne ma après ah mu ne la firé waaye du jaaxal bii de. Hmm. ay caaxaan. mais est-ce que mos na koo essayé yow. am naa benn nopp bu may liggéey nii boo xam ne tur la tur dinaa la woon vidéo ko ma ko ma ko defal rek. te daal baaxu jiw. baaxu. na nga hmm. leen dafa mën tur bii la te génn ma ak ko ànd ko rek. ndax am na yoo xam ne man fi nekk du ay jaaxaan. ah <laughs> man de bis su dee wàll damaa xaw a yéemu sax. d'accord am problème mais yow ku ñëw di ko man moom da koy essayé ba pare mu door a fay wala. bu àndale ko ne yàlla bii la koy jox dana bu wéy ba fekk tur ba sa bopp ñu koy bopp waaye bii su ma ko joxee ah, hmm. yaa xam ne ëwësul bopp yaa yaa xam yaa xam ne jël yàlla ba xam hmm. mais. bëy mi ànd xaru euh, bëy bi si boppam deru benn melawax kon kay day jaar ki ko ki ko jënd moom day jaar moom tam mu dem jëndal boppam bëy yóbbu ko këram lewetal ko jël dem ba ñoom ko. ñu daal moo xam ne yàpp yàpp moom moo xam ne mu parce que dañ gis dañ gis léegi ci yenn ñu ko ñu baal na suñu mbokk bu dee ñuy wax ne dañuy changer ay téere dañuy changer. bu baax sax. sëriñ yu bëri damay dégg ñuy critiquer. bëri bi ko jox nombre rek. dama ne së sëriñ bi ma ceeg ba mu ñëwee mën man amu naa ko damaa ci téere ma téere ci bisu téere ma xaar ma téere si boppam laa téere bu ma ko teppee ah fooyi kese respect fooyi kese maanaam nii dama la takk ba abada doo gis dara kër ko ëwal si dama yóbbu sa okkal ba si laa jël bu fekk foofu foofu foofu mooy ci foofu c'est pas possible maanaam am na loo xam ne dafa amul mais waaye léegi ma fekk na ma mais léegi est-ce que amu leen beneen méthode bu bu ngeen mën a jëriñee nit ñi te mu bañ a. gaañ moom moom boppam moom boppam mën na kaay jël mais bu ko jëriñ. loo hmm. xam naa li nga léegi xam loolu mën na indi man man man sa diggante client boo doon defaral mu dem ñëwoon ko ko fekk bañ ko fañ ko ëwalee dañ ko changé mu ne kon voilà li mu doon ut amu ci après mu ne kon sëriñ bi la ma doon ñaanal amul waaw loolu day am bëri na ñoo xam maanaam ñu dem si sëriñ tamit di jàng mu ngi si dara fekk na dañoo gis seen biir am na ah, naa nekk tamit ñu jox leen ñu leen jox leen sa ngàll wala mu jox leen gàllal ñu ko te fekk ñoo xaatim mu dama la te mu dama si biir kër gi sax musiba la mm-hmm. wax maa nga sangoo ko loolu nag moom mooy yokk paysan ñu pour ñu gis résultat mm-hmm. mais ñun yàlla baaxal nañu si kàttanu yàlla bokk ñun suñ tébee gàllaaj baax nañ koy xam ok léegi allah. mu doon lu am solo Serigne Souleymane Diouf du ma jeexal jotaay bi te xam nga ni waxtaanuma ci wàllu ngóor ak fan nga ci toll ak ya nga doon fexe yu avié fu mu toll ak voilà. wàllu nga saa teel a gën a war a waaw hmm? teel a gën nii nii nii nii. Hmm. waaw maa ngi am <laughs> <laughs> yokk dose. maanaam maa yokk dose xam nga gars yi dafa waxoon ne maanaam affaire bi des na. Hmm. maa ko jox nit keneen ki mu mu waroon a ko yokkal dose bi ma yokkee dose bi ma jox ko yow mii ci boppam. Ah, salli ala Muhammad. ah ñëpp dafa coow yow nga ne yow des na ma yokkal na naa wàññi wax lu mu nekk rek ma ko di wax. Hmm. ndax dégg président mën na laa wax ne lii moom ba léegi dafa fekk ne ndoxum sa ci même la hmm. xam nga yàlla defee ne moo ko jox ko benn garab ndox mu sëtin xëy naan ay ay une semaine deux semaines ba mu paree après bi mu gis waa nga bi jël ko mu ko jëlee la moom wax mu ne ma sobee wax dëgg yàlla sant naa yàlla moo sof naa ma si yàlla waaw boo dund lu bàyyi moom xam naa la moo sof naa ma fii nii boo si boppam après bi si dafa ñaanale donc yàlla baax na ñaan moom si loxo yi yàlla mais wàllu ñaan moom doo si gis dafa am loolu waaw wàllu wàllu nguur moom yàlla damaa dimbali moom dama kaa gëstu ba pekk ba pare la toog sa kàmba lu ma xam lu ma ko wax ci wàllu woowu xam ne wax yàlla may nga ñu ñu toog waxtaane ko yow lépp xam ne ci nga xam ne sénégal ngi ko suñu mbokk yi ci bitim réew lan mooy doon message bi ak kaddu yu mujj yi ci jotaay bi ñu doole koo yëkkati incha allah waaw li may wax rek yàlla nu yàlla booy dimbali yàlla jubal ñu yàlla yàlla jubal yàlla rey ñu si siraatul mustaqim si képp si siraatul mustaqim yàlla na si yàlla rey dekkal bi si barke Seydina Muhammad moo leen gis bu fi nekk tamit yàlla ko yàlla teggi ndax fi mu ni gàllankoor yu bëri na lool mooy gàllankoor bu yàlla tegal tegal jaam la naka mu ñëw te jaam yàlla ñaan ko yàlla dégg bu ko te yàlla yàlla teggal moo doon ñu dëgg barke yu dëgg si yàlla waa bu baax di leen ñaanal yàlla li nga xam ne nag yooyu yàlla tegoon la yàlla fa yàlla tey te yàlla fa mujj yàlla fa mujj si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xalifa ba yàlla fa yàlla sàmm ak mboolem xalifa bu nekk si dënuloo bi rek yàlla na yàlla sàmm mboolem julli si barke Seydina Muhammad wa aaxiri daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa ila liqaa ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buru ay maqaama yàllaaw